waaw Fatma man kooku lan ngay wax ci euh, Moodu Moodu ak Fatou Fatou bu demee ba commencé jël âge di commencé nekk mag mhm. euh, nga xam ne que perdre na repère Afrique maanaam xàmmeetul lu bari Afrique te tamit fii dëkku jàmbur la mhm. yan matukaay la war a jël dafa war a commencé di dem ndànk-ndànk di ñëwaat pour teel a miin fële wala lan la war dafa war a continuer toog fii rek xaar yàlla. xam nga ku dem bay nekk mag daal nga xam ne que màgget man na ko fi fekk. waaw euh, te daanaka dëkk na fi ay at miinatul Afrique. Mhm. te tamit climat fii wax dëgg yàlla bu ñu waxante dëgg tubaab yi boo dégg ko ñu naan diw dafa tubaabee dafa bëgg lu baax tubaab yi seen maam yi nag wax dëgg yàlla dañ leen a liggéeyal Afrique rek ngay dégg ku naan njëriñ loo fekkee. Mhm. baat boobu moo nu indil problème bu rëy tubaab yi seen maam yi danoo liggéey seen doom yi liggéey seen sën yi liggéey seetaat di liggéey moo war waral chaque jour ñuy continuer seen réew euh, di avancé am nu mu mel. Mhm. man nee naa leen euh, maa koy wax ma ne ko li ma metti ci suñu njiit tuuti bi ma masoon gis da ngay gis dëkk tubaab yi benn dëkk bu ndaw wax ma la réew mi de mhm. comme ñu ne la euh, Berlin am na ñetti aéroport mhm. Sénégal moo am ñaari aéroport tëj benn bi ci gàttal mhm. te kon bu dee jël nga intention màgg boo amee aéroport bi da nga koy defaraat defar bu bees bu xalaataat la leneen waaw maanaam suñ aéroport bii ñuy naw gars yi yor nañu yu ko mat trente te yëgaluñ ko seen yaram kon il fallait que tamit boo bëggee defar sa réew da ngay rëy yéene rëy ambition di songu lu mag loo xam bu daanoo mu tekki dara. léegi nag man boo gisee benn dëkk am loolu ñun ñu am lii di kii damay gis que ne li nu tubaab yi rawee bari na te yëguñu ne raw nan ñun ñu rawee tam yëguñu ne raw nan raw nan. mais Cheikh yaa ngi jaxase wax bi. Mhm. parce que yaa ngi duggoon fu am important. kon yaa Euh, ñi nga xam ne. dem nañ fi ba mag nañ. waaw ci mag bi laa doon ko quoi waaw. mais ñëwaatal foofu rek. waaw loolu ñu ñu ñu dem ci tuuti. maanaam dama bëggoon wax ne danoo tàmm fii. Hmm. ba dund fële day jafe. ndax fi climat bi yoon bi def yoon ak euh, ñu liggéey loola fay la wax la def ko respecté la nga dem di fay ba faju ñu respecté la bu dee rang bi tubaab bi jiitu day topp ci ginnaawam bu dee yaa ko jiitu mu topp sa ginnaaw. Hmm. loolu noonu quoi par rapport ak bu nit ki commencé màgget war a ñibbi moo tax dama ne dafay toog xaar fi dee wala mu dem Afrique. xaar fa xam nga fi nga laal moom dafa xala sensitive. dafa xaw a bu mm. dafa xala euh, nekk loo xam ne parce que euh, am na ñoo xam ne ñu ngi fi toog yàggu yàgg fi du seen coobare. Euh, mm. du seen coobare coobare. Mm-hmm. comprendre du seen coobare ñoom. Mm-hmm. xëj na nekk nañ fi amuñ kayit. amuñu kayit. Mm-hmm. ba yàlla def ñu yàgg fi ba ñoom xëj na seen doom moo juddu sax ba tax ñoom ñu am kayit ci réew. am na léegi ci dëkk yu baree bari. Mm-hmm. yow mën nga faa nekk doo am kayit sa doom juddu nekk ñu jox ko kayiti réew mi léegi turu kayiti réew moomu sa doom foog mu am 21 pour yow. Mm-hmm. léegi kooku xam nga kooku eh, nekkut ne dafa toogee fii ci li ko neex. ba demul dëkkaam. Mm-hmm. ba demul dëkkam. te gis nga fa suñu mel noonu. wallaahi boo xoolee bi ci biir. ñooñu demuñ seen dëkka de waaye seen alal bu bëri mu ngi seen dëkka te buñ delluwaatee seen dëkka tey duñ ko gis xam nga lan moo tax ma posé la question bi dama mas a dajeeg ay jamono ambassade Allemagne benn waay waa ji mag la euh, mag la carrément quoi léegi ki koy jàppale da da nga ko yërëm parce que dafa demoon ba moom fii la nekk Allemagne mais mu dem Sénégal am benn moment boo xam day perdre réseau maanaam perdre réseau bi nan laa ko mën a waxee xam ma da am na daal problème yu muy am ba xëy na sànni passeport am ak xaalisam ak léppam mhm. léegi ñëwaat foofu di lijjantiwaat kii ñu koy jàppale naan bee bi nga mujjee jël fan la lii naan ko nii moom nekkatu ki koy jàppale moo koy jàppale ci loolu mais moom xamatul lu bari. saaru ku mel noonu moo tax ma jël intention ndax nit ki bu commencé màgget. li baax muy dem di ñëw wala mu dem toog wala mu xaar fii. bon foofu laay waxee pour conseil nit waaw. waaw bu fekkee mun na ko. Hmm. na ko def avant muy màgget. avant muy màgget di waajal boppam daal. waaw parce que gëstu sa réew baax na. Hmm. xam nga lu bon. Hmm. ne du ma gëstu suma réew parce que aw ma lu ma fa yóbbu. aw ma lu ma fa yóbbu. amoo kenn pour Euh, na nit ku ñuul ki africain bi na bàyyi loolu mm. comme ñu fiil ne yow kii dem na Europe Cheikh dem na Europe mm. ñëw na dafa war a ñëw ak tekki dafa mm. war a ñëw ak am fii am na ñu fiy ñëw te duñ mën a tekki duñ mën a am du ñëpp ñoo am te tey di gis ku jógee Afrique ñëw fii Europe um, bu jàngut déggut laaka bi dina ko jël ay ñaata at balaa muy mën a bokk ci système bi. gis ngeen kon Ousseynou lii Mamy Danfa Sayer Fall joxe leen idée yi ñu ñëw bu baax a baax a baax ci waxtaan bi ak kii ak Fatoumata Rahman Koka ci waxtaan bi nekk nii léegi dama bëgg ñëwaat si beneen mbir boo xam ne que dafay am ci biir xale yu góor yi. Euh, pas xale yu góor yi mais comme Pa Fatou Fatou Modou Modou gis nañ ne seen njaboot Europe fii dañoo teg fenn xale surtout xale bu teelee xam ay droit am. Mhm. mën na indil problème ay waajuram. Mhm. yooyu tamit jafe-jafe yu bari da ci am boo ko doon expliqué nan lay dem une deux mu woote ñu jël si lan la la def nangam xale bi mën na sosal yaay ji ba indil ko problème am mën na sosal papa ji ba indil ko problème ba da ngay gis ne léegi ñu bari yar gi mu war a yar seen njaboot dañuy xaw a am fit bu tuuti pour bañ xale bi jaxase leen ak àddina ba dun am sañ-sañ bi ndax lan bu dee xale bi ragalul yàlla tuuti mën naa ñëw ne dóor nañ ma wala def nañ ma lii te defuñu ko boo ko defee au lieu que waajur bi doon responsable lu xale bi day mel ne xale bi mooy responsable bi ndax da bañ lu ko metti ba far def lu ko neex ba far mu dugg ci tooxi doon mm-hmm. loolu ci wax loolu. foofu dinañ ci sàcce tuuti parce que euh, thème boppam la. thème boppam la thème bu yaatu la. boobu dafa yaatu à part. torop. Mm-hmm. kon sàcc tuuti ñu bàyyi ko. waaw ci yariñ yariñ yariñ yariñ bi mu fa. Mm-hmm. Euh, euh, ak boo xam ne euh, yar nga ba sonna sax mm. waaye bedd bi moo yar sax mm. mm. soo moo tax ma la lu yaatu la boobu dañ ci ñëw dañ ci waaw ciy ñëw après parce que thème boppam la thème boppam waaye waaye mun nañ ci sàcc tuuti rek waaw sàcc tuuti kon rek bu ko ñu def ko thème boppam waaw parce que dëgg la am na xale yoo xam ne fii tey ñoom ñooy tax ba seen péréen yi nguur gi teg xale yi loxo teg xale yi loxo nangu leen waaw loolu am na fi bari na fi torop am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi fi tey ñu ngi koo dunda ñu ngi koy dund waaw mm. te seen doom yi ñoo tax mm. euh, moo tax ma la foog naa ñu bàyyi ko ci beneen pour nit ñi mun a comprendre li négatif li ma ci mun a wax ak li positif kon daal boobu dañ koy ber à waaw parce que soo ko xoolee li ci ëpp doole nag danga naan ne ci mm. yarin bi la ci yarin bi la parce que yar bu njëkk ba mm-hmm. bu teeloon dëgër du dina la rus non xam nga fi ma miin foofu mooy. Mm. Euh, xaleel boo ko fen fen looy rek ci fen lay continuer. ci fen lay continuer comme tey euh, boo ma wooyoon téléphone. mu óor ma ne maa ngi si biir kër gi ma gestu ne suma doom wax ko ne ko nekkuma fi nekk nekk muy dégg loolu ah. xam nga xale boobu boo ko ne nekku mm. mu def laa ne oh suma yaay mu ne nekku fi miinal nga ko fen noonu miinal nga ko fen jàngal nga ko fen boo liggéey tamit mu mën a la wax loo xam ne amul amul yow foog mu def ko parce que yàq ko jàngal fen ko jàngal waaw kon dégg ko bu baax a baax ci wàllu boobu nee na loolu tem la mooy ñi nga xam ne euh, que loolu dafa yaatu daal mooy xale yi nga xam ne que pour ñu yaru dafay jafe parce que léeg man dangay ngay seen kuraan la doom dafa topp ku baal ku mën ku mën dëddalee dafa topp kee euh, te léegi seen xarit yooyu ñu topp seen ndigal la ni gën a jàpp ci sa ndigal yow loolu day fekk sa càggante la boo xam ne euh, que bu leen di mandiloo topp noonu ko bu leen di sàccloo topp noonu ko te ci dara. Mhm. nga gis yaa ngi jël yoon yoonu ñàkk ko bu baax a baax a baax daal. Mhm. kon ngeen bàyyi xel loolu Afrique fan nga gisaat ne. ci wàll bi ba léegi war nañ ci dugg ci dundinu faatu faatu ak moodu moodu ginnaaw bi ñu waxee ci solin bi nekkin bi mu des nag nit ki bu sëyee tas beneen moodu moodu takk ko wala beneen wala tamit ki nga xam ne kat dafa indi jabaram bi mu indi jabar bi jabar ji dafa mel ne saaru kaw kaw du siggi xool nit yaru ñëw nag commencé xamal boppam réseau bi gis tubaab yoo xam ne que bëgg nañ ko te tubaab yi mën na jënd seen jëkkër ci xaalis ñu commencé di xaritoog tubaab bi euh, xel ñaaw ku jëkkër gi dem bu waxee ñu ne ko dangaa naqari dara dangaa bari looy kaas nangam ba ay problème yooy di ci am daal sëy yu tas loolu tamit loo ci wax xam nga boobu mooy la boobu tam beneen thème la rek ah boobu beneen thème la parce que parce foofu ñaari hmm. côté nga war a xool hmm. nit ki ñëw na ci réew xëj na ba moo nekk Afrique xamul droit hmm. te nga xam sa right ci dëkk boo ne dafa important dafa important waaw léegi bu demee ba moom xam na right tam ci dëkk boobu noonu gisuma benn problème bu ci nekk. pour mu ne la ok nii la war a demee ak nii la war a demee. mais Afrique moom nii ni sëyee li ñu xam mooy jigéen. day togg yàq ndigal rek lay wéyee quoi mais fii bu bëggee wax ay droit tamit yooyu bu dee sëyu Afrique la nu mu demee. du dee waaw nañu waxante dëgg hmm. Afrique nga wax. fii du Afrique. fii du Afrique waaw nit ñi. waaw ñaari africain bu ñu fi nekkee tamit day mel Afrique lan war a nekk wala. <laughs> non kon léegi kuy fay bil si. Eh, doy bu fekkee dañu dañu war a sëy sëy Afrique fii ci Europe bi fii. Mm. sëy Afrique mooy xamuñ ngay war a jóg di liggéey ci jigéen mm. yow lu nga war a def rek mooy toog si kër bi gere xale yi clean def leen li jëkkër ji moo war a dem indi lépp indi ko sëy Afrique ñun loolu la ñu gëm la woon waa xam nga bu time dafa dema dema dem be jigéen ñi fight seen right wane ne fu góor mun a ne jigéen mun a fa ne loolu su seen ñu ko fight mooy pour wane ne ñoom tamit ñu indi dara si biir kër bi. ñu indi dara ci biir kër bi. understand nga. Mm-hmm. kon gis nga um, loolu thème bu mag la man ay ne um, sëy lañ war a indi fii. Mm. non man ànduma ci li ma ànd akay mooy. Mm. sa culture bi nga jógee Afrique danga ko war a maintain foo mun a ne ci àddina. Mm-hmm. sa religion bi nga jëlee Afrique da nga ko a maintain foo jógee ci euh, foo mun a ne ci àddina. waaye fii doo fi mun a ñëw. ñu tëj la comme président ka nekk nekk ci kaso. Mm-hmm. yow mi ma jëlee Afrique indi ma fii da war a xam ne dama am yaay dama war a dama am papa dama am ay mbokk Afrique léegi ñëw naa fi nga xam ne nekkaatul Afrique fii dama fi war a ñëw pour dimbale samay mm-hmm. mbokk tamit. Ah, jeex na Fatma Dramane ko am na beneen problème bu am tamit ci mbir yi ba léegi ci Modou Modou faatu faatu da ngay seen koo xam ne que dafa yóbbu jabaram hmm. bu ko indee mbokki boppam mere ko yóbbu na jàppa jabar ji bàyyi fi diw léegi ëllëg jabar ji moom bu demee di liggéey am réseau mën naa fexe ba yóbbu rakkam bu bu góor mais boobaa nag rakkam bu góor bi même jabar ji liggéey yóbbu ko danaan jëkkër ji mooy yóbbu rakku diw te bàyyi na fi diw bu ko defee mu mel ne famille goro yi la gën a fonk ci famille boppam ba fiiraange di indi ay jafe-jafe ci diggante boobu. foofu du problème yi Moodu Moodu la. foofu foofu euh, beneen thème sax. beneen thème la néegi sëy la. <laughs> néegi sëy la ah ok problème yi néegi sëy a nekk noonu. Mm-hmm. mooy problème yi néegi sëy la right parce que euh, du Moodu Moodu da koy dundal. Mm-hmm. am na ñu nekk Afrique di dundal li ngay wax nii. Mm-hmm. te mu nekk man dama ko jàppee ne lan moo ci nekk tamit ba tey rek. foofu lay waxee loolu. yow yaa moom sa doole. yaa moom sa xaalis. Mm-hmm. xanaa ku la neex nga indi. ku la neex nga indi waaye xam nga ñoom because ñun suñ mentalité we design like that. Mm-hmm. luñ gëm mooy ne jàpp nañ kii mystiquement jàpp nañ kii mystiquement jàpp nañ ko jàpp ko. soo tey man bu ma amoon sama xaalis ne ok sama rakki jëkkër laa bëgg a fayal ma indi ko fii. Mm-hmm. pour mu ñëw fii nii. mun naa nekk xëy na suma rakki jëkkër bu jigéen la xëy na man ma jógee amuñ fa jigéen. koo xam ne kooku laa bokkal ndey ak bul fàtte ne suma famille jëkkër suma famille la mhm. xam nga nit ñi ñoo tax séparation am mhm. doo mun a ne may naa sa may nga sa doom nit mhm. ba pare nga ne kooku rek nga ko may gis nga léegi ñun Afrique benn la boo nit ki buy sëy daal daf day sëy ak ñëpp day fay ñëpp léegi man bu ma indee sa raka ak nga indi ma indi sa euh, sama raka dafa war a doon benn dafa war a doon li bon kay mooy yow nga nekk suma jëkkër indi sa raka ba pare man ma ne su ma bëggee indi suma rakk nga ne ma déet doo ko indi. doo ko indi waaw foofu am na luñ ci challenge. Mm-hmm. waaye man gisuma ci dara lu ci nekk pour ki kuñ mun a indi rek. kuñ mën a koo a indi. war ko surtout nekkee ne doom góor boo xam ne la ku amal yaayam yërmande la. am na jom mm-hmm. am na jom. li mu war a def seen kër yëpp mu koy def kon bu indi rakki jabaram war te nekk problème. warul nag warul nekk problème déedéet. Mm-hmm. kon dégg ngeen ko Fatoumatta Rahman Kocka mi ngi expliqué bu baax a baax ci dundinu Fatou Fatou. ak moodu moodu mu des tamit euh, ci biir liggéey bi hmm. xeetu comme lii ngay wax toog kër ga euh, ku jigéen ki xay na mën nañ koo toogloo kër ga pour mu sàmm njaboot gi hmm. ak yooyu mu jàppe ne kii da koo soxore ba tax nangul liggéey comme comprendre wax léegi tamit kee tamit day toog famille boppam moom sëy rek lay def ci réew mi Italie wala Allemagne wala moom day sëy ay mbokki boppam tamit ni ko yónnee ma dara yónnee ma dara di ko yónnee loo xam ne ko amul hmm. loolu tamit du beneen jafe ci ñoom xam nga fii kenn mënu fa indi ba pare amee ko hundred percent mm-hmm. yow amee sa njaboot biir Europe rek dafa métti mm-hmm. léegi foogoo ne nga am sa jabar faatu faatu boobu ñëw mm-hmm. yéen ñaan ñëpp muy liggéey ngay liggéey ku nekk mun a yónnee xam nga tey yow ngay doon góor Cheikh nga takk ma ma doon sa jabar ñu dëkk sa Europe bi fii nii Cheikh nañ waxante dëgg ma bugga laa en man samay mbokk seen responsibility bugga la en yow tamit samay mbokk seen responsibility loolu bu yàggee mooy indi problème yi néegi sëy bi day metti ndax dañ lay sa bi lu diis Mm-hmm. problème néegu sëy la. problème néegu sëy. waaw da ngay dégg ku góor ki mooy togg ëllëg diw ma loolu am na wala du dëgg. am na loolu ñu naan tey tey jëkkër ji aaye ëllëg jabar ji aaye. non non non kenn ko wax ñi ñee ko ñaawal rek. ñu koy ñaawal rek mais dégg jàpp leen ko ah. nañ rafetal amul góor gi parce que gis nga africain loolu mooy suñ problème. Mm-hmm. maa ngi jégalu foofu parce que. Mm-hmm. problème bu mag lañ am. tey nit ki mu ngi sëy ak nit. waaw ci Europe fii. yow jigéen bi forcé woo sa jëkkër pour boo nekkee si waañ bi mu jàppale la ci xale yi mm-hmm. wala mu ñëw léegi-léegi gis la ngay raxasa mu ne xaaral ma raxasal la mm-hmm. ñoom dañ ko miin boo dikkee si Europe da nga lay bokka dañ lay bokk mm-hmm. bokka soo da nga ko miin waaye gis na di minute nga jógee Europe dem Afrique rek sa jëkkër di defee noonu ba léegi rek problème ñëw na problème ñëw problème bi li ko indi mooy say mbokk yow mbokki jëkkër ji ñooy taxaw naan dafa ragal jabaram. dafa ragal jabaram. gis nga raxasal na ko bool. waru ko raxas bool fekkul bàyyi raxas bool fekk yërmande la. Mm-hmm. léegi famille jigéen bi ci boppam. ñooy xool jëkkër yi ba mu leen doy ñu ne xool ko. yow ñàkk a fayda ba dee xam loolu moo dee waral sax léegi léegi ji góor gi ki la takka dafaa dem ba commencé di la xeeb di la jéppi di la wane gis nga dañu wax ne takka ñaareel gi yëpp looloo ko indi. looloo ko li ah, ci ëpp doole. waaw li ci doole parce que ah, boo demee ba file sa jabar euh, daf la xeeb Mm-hmm. sa jabar daf la bugg a yeb sa nit ñi nit ñaa ngi yëy sa nopp bi naan la danga ko ragal danga ko ragal danga ko ragal. Mm-hmm. dangay bugg a prouver point. jaay affaire de guerrier quoi. Mm-hmm. pour wane ne ragaluma la parce que ñun euh, nit ku ñuul surtout ma góor ni muy nattee ñàkk ragal jigéen mooy xaaral ma takka keneen indi ko. xaaral ma takk moo si ba. parce que takka nga keneen indi ko bala bañuma kuy takka man moom. bologa bi moom awma ci problème. waaye xoolal ki ngay takk ki ngay indi sa biir famille ngay xool. léegi nag foofu ñëwal ma ci bien commun nag mooy bokk seen alal ba pare ëllëg góor bi bëgg a takk beneen jabar boobu mas naa ci am benn cas bu may kalaame. bari naa te métti na Modou Modou yaa ngi koy dunda Fatou Fatou yaa ngi koy dunda. Hmm. yow fii da ngaa gis koo xam ne mu ngi suba ngoon guddee bëccëg mu ngi liggéey. di hmm. dimbali jëkkëram. Hmm. wàcc na jëkkëram fay rent fii daf fiy am. benn wa wax boo xam ne dinaa la ko wax te foofu ci néegi sëy la bokk waaye foog ma sàcce ko tuuti. Euh, jigéeni africain rek. ngay jox. xaw ma yéen seen xaalis ñoo koy wax xaar mooy xot moom ngay jox ten dollar ne ko dépense. dépense. wallahi mu tegal la añi hundred dollar. dolli ci quoi. waaw waaw boo ko joxee ten dollar. Hmm. daf lay tegal añi ten do uh, hundred dollar. tegal la reeri thousand dollars. ah bu dee day liggéey moom baax na. li non non non liggéey bi. Hmm. jigéen dama la bëgg a ne ñoom du nit ñi duñ koy gis waaye jigéen am na fu mu dee sutura uh, jëkkëram Mm-hmm. dafa laa li ma la bëgg a wax foofu mooy li ko jëkkëram di jox dépense duy bari mm-hmm. waaye jëkkër ji bu ñëwee di lekka mm-hmm. moom xam na ko ne ko li ma fi joxee liñ fi teg ëpp na lii waaw moo tax ma bu dee bu dee day ah, pour jógee faneen te liggéeyul nag la may waaw fan la ko ah, liggéey bee ko ah, léegi xam nga loolu ma la bëgg a wax foofu góor gi dem na même miin ne du ma dugalaat fii xaalis bu baree bari léegi moom du dugal xaalis jigéen ji mooy ñun dañ dañ xër nangu ko rek jeex waaw jigéen ñi moom dañ baax dañ xër parce que dañ xajaan Mm. ñun suñ sëyee ak suñ jëkkër mm. ñun dañuy bëgg a def taabalu ndaanaan bër bu set mm. taabalu ndaanaan xam naa li wax xam dañuy am feem dafa am feem yi ñuy àndal jëkkër ji dina gis ne teg nañ añ bu riche bool bu riche lañ ko defee taabul bi buñ ko bu ko xoolee rek day kontaan ba ngoon gi jot ndaw si sangu ba set sant si sant si jongama def kawar yu rafet def lépp ba mbaax Mhm. fekk góor gi jox ko fa mooy li ma la am mooy. Mhm. jigéen ñi ñoo xër. ñoo xër ñoo bëgg a comme xajaan. Mhm. ñoo bëgg pour nga xool leen ne kii suma jabar dee. xajaan moo leen ciy Gambie. xajaan xajaan mooy xajaan rek. xajaan ok. xam nga léegi euh, Cheikh. waaw kooku di liggéey di def loolu yëpp. di ko dugal si biir kër bi waaye yow Moodu Moodu bi. yaa ngi liggéey am looy réservé. looy réservé. yaa ngi liggéey di denc parce que hmm. kii. muy jigéen bi fatana gaab si baree bari. Mm-hmm. fatana benn tur yu bari nga ne ko li fatana soo léegi jàppee nga ko def. Mm-hmm. yow balaa jigéen bi di xam. Mm-hmm. fekk yow dafa toog rek ay mbokkaam naan ko muñal. muñal takkal nañ la wuja. takkal nañ la wuja gis nga takka wuja dafa am yoon. cheikh tegtal lañ nekk fii sëriñ yu bari tey. waaw buñ leen xamee tegtal a tax. tegtal a tax soo nañ ma nañ ànd ak man fi maa wax tuuti. ñoom ñi may déglu sëriñ yi. nañ wax li maa wax nii ndax am na ndax amul. am dafa am yoon. duma sëriñ duma lii waaye common sense daf laa woon ne mm-hmm. sëy dafa am yoon booy dem di takka jabar koo xam ne yéen a ngi nekk ci Europe bi yéen a ngi daanoo ko jóg mm-hmm. jabar ji li moo dugal si biir kër gi sax yow dimbali dugaluloo ko fa mm-hmm. yow wàcc na la lu baree baree bare àq mu fa àq fa nañ leen bàyyi xel jëkkër nawle la jabar nawle la. jabar nawle la waaye nga xëy benn bis rek jël xaalis bi nga xam ne moom ngeen dajale woon am ko sa account dem rek takkee ko jabar. Mm-hmm. ba pare li ci gën a métti mooy moodu moodu na fi nekk faatu faatu nekk fi ñu liggéey tabax seen kër. bem mm-hmm. ja xëy rek takka beneen jabar rek dugal ko ca biir kër ga. jë mm-hmm. kon daal yéen takk jabar bi du gi non non non non takka jabar ji sax. du dee nekk problème de. Mhm. mooy la ma la waxoon rek ka nga indi la. ak naka la ñëwee. Mhm. gis nga jabar buñ lay indi wala boo ñëwangul. Mhm. nga ànd ak respect rek. góor gi war naa xam ne kii su ma ko takkee dina ñëw respect waa kër waaye bu fekkee yow yaa ngee dem ak nit. moom avant mu lay takk sax. ngay wane sa bopp. foo dem taxaw wale sa bopp wale ne man maa jëkkëri jàmbur bi lay dem nee nii mm. kooku na ko óor na boo duggee biir këram tas kër ga xam nga ñu ngee ñu ngee sàcc ci ci ci loo xam ne beneen thème la loolu la ko bëgg a indil ni mu gën a neex léegi bëgg naa ñëw ci beneen côté lan moo tax euh, xeetu rassa rassa lan moo ci neex tubaab yi ba da ngay gis euh, xeetu ñuy niroog Baay Faal mm. sol njaxas ak yu mel ñu ci bari dañuy am jabaru tubaab quoi lu waral loolu ah man loolu nag laaj ko ñooñu. ma laaj ko ñooñu. Ah, waaw man daal xamuma ci dara xëy na ah. xëy na tubaab bi loolu xam nga rasta tamit boo ko xoolee ba xoolaat ko bu baax. Mm-hmm. dafa xala am lu mu jël trop ci africain. ci africain. Mm-hmm. so dafa wan sa natural. amul mm-hmm. def loo artificial comme tey gis nga ma tey. maa ngi fii toog teg daal ah def suma blonde nii. te xam nga xam nga mënoon naa def suma ay ay contrôle rek bàyyi. waaye jamono change dama ànd ak moom rek. nga ànd moom rek. ok <laughs> xam nga waa eh. léegi. Eh. tubaab bi xëy na dafa gis. lu naturel gis na ne kii jaay na ma colchon kawaram mu ko bàyyi natural la. Mhm. natural moo tax mu dem ba lox. ba pare mu ngi wane ni mbubi bàyyi faa mu ngi loolu yaa ngi wane sa culture sa culture. macha allah jërëjëf Fatoumata Rahman Coker gërëm nañ la bu baax sant la ci waxtaan bi. Mm. Euh, deuxième partie. du yëg Fatou Fatou yi. waaw ku la ci mere nag moom mere la man waxuma de ah, moom moo doon wax nag loolu de. Hmm. ku ma ci mere mu mere moom ëpp na. Eh, dëgg la dëgg la yow da ngay defar bu ñu kenn mere. Hmm. Ah, di wax na jërëjëf. jërëjëf ci invité bi nga xam ne moom nga may invité saa ne. ëllëg yow yaa may invité na ah. déedéet yaa may invité. non ëllëg yow yaa may invité moom mooy borom Tektal TV moom mooy présidente bi. mooy <laughs> directrice bi mooy lépp moom mooy bos bi mooy def kii. temps moom dinañ ànd def émission yu saf-saf moom moo may invité nag may wax waxu dof rek ah. déedéet ah, kon euh, di la gërëm sant bu baax euh, parce que tey euh, bu toon yow. xëy na mm-hmm. du ma a toog fii si tegtal sax. di wax tax ma xam la tey muy sama sista bu baax di yaama bàcc li yaama bàcc li nekk Amérique non xam nga ne xam nga ne loolu foog ñu sol yeneen émission dinañ moom mi may solal moo koy solal dinañ la bindal numéro ah, yaa ma bàccili ci suuf noonu dégg nga ku bëgg lu baax la lan ak lan lay am yaa ma bàccili daal am mu ci cuub mu ci cuub yi baax yi eh, mu ci kawar yi mu ci kawar yi boo buggee ay aset ay aset xam nga ay ndab dafa important waaw waaw boo buggee yooyu itam yaa ma ngi ci yaa ma dafay jaay ay xam nga li defar néeg daal luy defar kër daal lépp mu ngi ci moom yaa ma bàccili kon numéro yaa ma bàccili ngi noonu ci écran bi ko soxla rek nga woo ko moom mooy solal Fatmata kooka bu baax a baax di ko habillé ci lépp. Mhm. Euh, te loo soxla di gërëm di mhm. sant bu baax di. di gërëm Modou Modou yi. Fatou Fatou yi mhm. euh, di wax ne tamit rek nañ gën a yokk. Euh, muñ. muñ dal. dal ak understanding. xam ne suñ buggee topp rek suñ mbokk yi nekk Afrique rek. duñ leen defalati dara. duñ leen defalati dara duñ leen defalati dara ah. Hmm. di nuyu nag suma mbokki Gambie nii yëpp. ñi nekk Gambie maa ngi leen ay nuyu. ñoom ñëpp ah, hmm. ku ci mel ni ah, sumay famille. sa famille ah, surtout ma yaay. wax dëgg dafa ne yàlla. Hmm. parce moom dafa jàpp suma combat. sa yaay nu mu tudd tudd ko. ndey su munu la tudd. ndey su munu nu mu sumunu day sumunu saraxule la saraxule la saraxule la mhm. euh, waaye nag da gis ne moom yaayam fii la jógee Kaffrine mhm. euh, joojo ndaw ku may déglu mhm. dina xam euh, man si ban famille laa jógee ñoom ñooy borom Ndukumaan borom bu baax waa Ndukumaan ñëpp waa Kaffrine ma ngi lay nuyu suma nijaayam fii moom tam ñu koy ooye colonel Jibi Mar Amérique patriote. bëgg Sonko ndeysaan di nuyu sama nijaay eh, colonel ex colonel Djibi Mar di ko nuyu uh-huh. nuyu famille mi yëpp ah, di nuyu suma tata Fatou Diop moom laa doon Fatou Kooka la Fatou Kooka la waaye ñu santale ko Diop parce que fii xamuñ Kooka Kooka moo tax ñu santale ko eh, Diop mm-hmm. ñoom Mbaru Thiam di nuyu ñëpp daal di nuyu ñëpp ah. waaw mm-hmm. di uh, nga waa Angleterre yëpp man nuyu naa Ousseynou Ly de bu <laughs> ma jaxasee waa Angleterre ah, ah moom ñoom tamit ñuy naa leen ñoom ñëpp eh, biju naa leen bu baax a baax di nuyu waa Suède ñoom tamit xam nga dañ ne dëkkandoo Suède waaw daaw euh, daaw Kumba daaw Kumba daaw Kumba di ko nuyu bu baax a baax mm. borom Stockholm mm. nuyu nañ ko bu baax Mariama Jànqe Alpha Saliou Kanté bari naa fii nit daal Suède ah kay Mamadou Diallo Baye Fall ay Ablaye Ndiaye ñu bëri ah mm-hmm. Ousseynou li Allemagne Cologne ak ah. euh, soxnaam Amina Ly. Amina Ly moom tam nuyu nañ ko Amina madame Ly ak uh-huh. Ramata. Mm-hmm. doomam doomam Ramata Ly. ak ah, bébé Fatmata Ndiaye. Ah, ak yaay mère Fatmata Ndiaye. waaw mm-hmm. gërëm nañ ko bu baax a baax a baax a baax. moom parce que lii di ci jàpp ñoom ñëpp ñu ngi lay nuyu daal. waaw di wax nit ñi nag yéen mi seetaan abonné leen. ci euh, Tektal TV ci Tektal doo ci fay dara. waaw abonné leen ci Tektal TV rek bés bu bés émission bu ñëw nga am ko waaw. waaw bu gërëm nañ mami d'enfant mami d'enfant tamit day togg togg yu baax comme ni ngay toggee yu baax mm-hmm. dina kii mm-hmm. Sayer Fall tamit day sonn ci ñun Ousseynou Ly sonn ci ñun euh, Dieynaba Jabaate Allemagne euh, waa Gambie yëpp daal parce que tegtal ñi koy seetaan lu ci ëpp Tektal TV waa Gàmbi dañ ci bokk bu baax a baax a baax a baax kon xewal dikk loraanga dak équipe technique bi ñu àndaloon Mohamed docteur Wade bu Casamance gërëm nañ ko Baye Massamba Diop ci montage beeg yëpp gërëm nañ ko euh, Petit Sow gërëm nañ ko Soxna May Diop réalisation bi euh, madame Diop gërëm nañ la gërëm nañ sëñ Fallou Mbacke Diop Zeynab Soxna Fat Jaxate Nijaay Seexu Jaxate ñëpp daal ñi nga xam ne que ñi ñuy seetaan ci Tektal TV xewal dikk loraanga dak Tektal TV seenu diaspora bi jaajëf